Ah, donc li ma euh, li ma fort ci wewu bay nee nañu Ousmane Sonko rassuré na militant yi xam leen ne euh, bu ñu euh, yàkkamti bu ñu mer bu ñu gën di kaas les à pourvoir des na yu bëree bëri nañu préparer seen ay dossiers déposés te xam ne ku ne xaj na ci. Ousmane Sonko moo wax loolu non je a plutôt dit c'est a plutôt il est sur les critères yi nga xam ne moom la jëlee doomu aadama yi. maanaam ñu xam ne on n'est pas c'est pas parce que on est le parti que ñun dañu war a am en tout cas des des des des des des ñu ñuy fal euh, fàttali nañu ne dañ ko seqoon ak ay alliés. Mhm. fàttali na ne dañ ko seq aussi ay sénégalais yi nga xam ne dañ ñoo gën a compétence ci yenn domaines yi donc pal gi renvoyé nañu critères yi nga xam ne moom la ñu jëlee te ne critères yi. weesuwul comme on l'a toujours dit dans le passage bi nga xam ne ñu ngi ko defoon si suñu ouvrage bi certains postes te man loolu gis naa nit ñi di ci di ci di ci di ci wax naan moom ñoo ñoo waxoon ne les postes sera yëpp ay cas appel à candidature je peux te citer ce passage bi nga xam ne mhm. si suñu projet bi wax nañ ci mu ngi ci ci projet bi nous consacrerons l'appel à candidature pour certains emplois de la haute fonction publique et du secteur parapublic et normaliser les recrutements civils et militaires par le recours exclusif au concours qui garantit l'égalité des chances aux citoyens. Mhm. je pense que loolu leer na nous consacrerons l'appel à candidature pour certains emplois donc. il n'a jamais été mais ñu bind la. ah mais bien sûr mais Ousmane wax na ñu dégg. no xam nga nit ki voilà le président Diomaye Faye il est même allé beaucoup plus loin. en disant que ku ñu fal DG da nga a arrêter politique. te alors que seen nomination yu mujj yi Fadilou Keita je le vois mal qui était passif wala ku ci mel ne Bathily hmm. wala keneen ak keneen arrêté politique ne signifie pas que ne tu dois pas militer suñu naan arrêté politique mooy maanaam li nit ñi doon def bàyyi seen poste de direction yi nekk toujours sur le ah, terrain non non non non bu leen bu leen wëlbati ah, non mais ça veut dire Mamadou Awa la vidéo de Diomaye est là mën naa ko teg la vidéo di Diomaye ce que le mën nga nekk dans le cadre d'une rencontre ngay développer une idée mhm. mais idée boobu soo paree les cadres du parti ça doit engager tout un parti le projet mu ngi sama automatique mënoon naa andi bi wan ko les Sénégalais a été écrit noir sur blanc et c'est pas écrit par Ousmane Sonko ni Diomaye c'est le parti l'ensemble du PASTEF ne les propos de Diomaye et Sonko n'engagent pas le parti non ça veut dire ça veut c'est des propos peut-être non affinés parce que peut-être bañ koy wax les deux plus hautes du pays jamono ji. PM euh, plus hautes autorités viennent d'un et ils sont pas plus intelligents que le parti. le parti est fait de ñoom comme ñoom dañu génnee université yi ñu génnee lépp lu ñu waxoon sax si sañ dañ cee juum ay doomu aadama lañ duñu ay malaaka. est ngeen nangu rek tey que ne vous en avez on n'en a pas trop dit. si bien sûr le livre le livre projet n'est pas sorti après n'est pas sorti après que. euh, le président Diomaye soit porté à la tête du pays ni le premier ministre Ousmane Sonko le livre projet est disponible avant les élections et ce livre-là résume notre notre en tout cas ce que nous pensons du Sénégal résume le projet de manière générale projet bu génn ci livre ñu tënk ko pour la postérité je pense que mënuñu ko ñàkkal fayda le projet nous représente notre vision du Sénégal et cette vision n'est pas la vision d'Ousmane Sonko c'est pas la vision de Bassirou Diomaye Faye c'est une vision que nous avons tous en commun celle d'un Sénégal euh, comment comment dire que celle d'un Sénégal euh, souverain juste prospère dans un Afrique euh, en progrès. Ah.